ahousubillah bisimillah inna wali yàlla barke borom Tuba ñu ngi leen di jaar bu baax a baax waaw waaw ñu ngi wax asalaamaaleykum wa rahmatullah di ziar bu baax Cheikh Mouhamadul Muntaxa di ko ñaanal mu yàgg fi loolu te ànd ak wér di ñaanal suñu jàmbaar ji Cheikh Ahmadou Karam Mbàkke nooré ni mu yàgg fi loolu te ànd ak wér ak njabootu Seydina Ousmane gépp suñu teewaay fii nag dara waralu ko lu dul wuy si suñu mbokkum taalibe di kalaamu 22 di mbokkum bu yaru baax bëgg li muy def man li muy def ndax ñun moom zikur la moo ñuy dundal kon képp koo xam ne yaa ngi ci waaw boo ko sellalee te dëggal ko rek boo ñu ci woowee rek da ñuy gis dinañ la ci dooleel ci suñu xalaat dinañ la ci dooleel ci xëy na suñu xam-xam bu néew ci li ñu ci sëriñ bi dénk te mi ngi ci yoon bi ndax li ma wax sànq rek dama ne yar teggin lu mu la mayul du la ko xañ waaw te yar teggin lañ gis ci moom waaw ñu gis ni li muy def rafet na ànd naag yar teggin moo tax ñu ni danañ ko dooleel waaw moom it mu déplacé wu ñëw ba kër ga yëgal nu ko moom it ah, ñu xam ni jamono xat na wax dëgg yàlla jamono jëpp grippe bee ñu xawoon a jàpp waaye teewul moom na mu jaayante ba ñëw kër ga dañ ne bu doon dix minutes lañ fiy def sax dina ñëw sagal ko ndax ki déplacé wu ñëw ba kër ga yëgal la bisam am na lu muy xaar ci yow kon moom xam nañ yar gi ci moom bu ñëwoon rek tàllal nit ñi loxo te tooguñu sax dina bëgg ndax dina xam ni ah Euh, xew yi dafa bari mission yi bari li nu sëriñ bi dénk tamit bari waaye nag wax dëgg yàlla li ma wax sànq koo xamul noo koy def nam la def a tax yar ak teggin gim nu ji moo tax nii rek lan mënoon def bégal ko ci ay mbokkam bégal ko ci ay xaritam bégal ko ci ay mbokki taalibeem sagal ko ci bisam ndax nit kat amul lu dul bisam muy bisu mbégte mbaa leneen waaw moo taxoon loola waraloon suñu teewaay fii moom suñu boroom daf ñu fee daf ñu fee wàcce ngir ñu jàmm ko ginnaaw bu ñu nangoo jaamu yàlla boole kook liggéey fonk suñuy wayjuur liñ ciy dolleeku muy gàllaaj gu njëkk ci ñun mooy yar ak teggin wax naa ko sànq ne ki nga xam ne bokkuñoo ak moom diine sax bu nu wanee yar ak teggin mën nañoo déplacer ngir ñu teew ndax yar ak teggin dafa dafa doomu adama bi da ko waral a làmboo ba nga xam ni boo toogee ci jataay xëy na sa xam-xam bu soriwul sax sa yar ak teggin moo tax dañ lay naw te lu ñuy def ca jataay ba dinañ la ca boole te tamit booy amee yar am teggin rek da ngay nabil te ku tedd ki moo ne uri li wajhi maliki sabila kulla muridin sadixin nabila nee na moom ki nga xamante ni bi dafa nekk murit saadix nabil nee na kooku lay wan yoon bi koo koy doon jëwriñ te loolu mënoo koo am te te te soobuwoo ci biir yar ak teggin kon ay yar ak i teggin ñun ñii dañ koy sàkku liñ ci am duñ ci doyal dañuy bëgg mu gën a jëm ca kanam ndax boo ko amee di nga fonk say wajur boo ko amee di nga wekk sa kilifa boo ko amee dinga nga respecté sa mag boo ko amee di nga yërëm sa rakk boo ko amee ñi nga xam ne danga ngaa bokk ak ñoom koñ say sax maanaam say at lu mu néew néew néew dinañ la fa rus ndax lépp lu ñuy dogal ca gox ba dinañ la ca bàyyi xel mbaa ñu laaj la ci xalaat même boo doonee ca ñu gën a tuuti ca gox ba kon loolu moo tax ma ni mooy mooy mooy galaaj gi njëkk ci doomu aadama te yarak ak teggin day guddalu fan yar ak teggin day guddalu fan waaw kon nag moo tax saa su nekk ñu ciy ñaax sunu morom sunu morom yi nga xam ne sañ nañoo wax ak ñoom ak ñi nga xam ni sëriñ bi daf ñoo dimbali ñu jamonoon teg ñoom tey nekk ak ñoom sur le terrain ñoom dafay baax ñu leen di fàttali li nga xamante ne bi nii moom la sunu borom wax yonent bi wax ko ku tedd ki dina ko fàttali Cheikh Ahmadou Kara Mbacké Noreyni saa su nee di ci sonn gauche droite ah matin midi soir yendalul fanaanalul ñun ñi nga xam ne dañoo doon nag ay jaam-jaamaatam doon ay taalibe doon ay ndaw kon ñun foofu rek lañ war a mën a teg sunu tànk buñ ko deful rek dañuy wàcc yoon te ci loolu la ñuy góorgóorlu saa su nekk waaw ndax jot bariwul te jamono jii ñu nekk dafa tëradi te liñ naan yàq dafa gaaw defar waaw liñ naan li nit mën ngaa tabax euh, euh, la preuve mën ngaa tabax kër goo xamante ni bi nii ay weer lay jël ba sax at waaye nag ci benn bis bu matuwaay yëpp ñëwee benn bis mën nañ koo daaneel waaw kon loolu looloo tax ñuy bëgg mbokk taalibe bi yëpp di góorgóorlu ci loolu di làmboo yar ak teggin ngir li nga gën li nu gën a bëgg a mën a liggéeyal sëriñ bi dañ koy gën a mën a jekku ànd ko doon benn say ndax solidarité dafa am solo jërë ngeen jëf eh, ku ne gis na ne ñi nga ànd ak léegi sëñ Baye Fall Mbacke sëñ Cheikhouna ak njabootu maam Cheikh Fall gi nekk sunu càmmooñ di njabootu seex Ndigal nga xam ne ku xam Cheikh Ahmadou Kora xam Cheikh Ndigal rek nga xam ne loolu démb la tey soog a ñëw waa kon ñoom it ñoom bu ñu soo gis leen ñun sunu xel day gën a dal sunu xol day gën a sedd waaw day séddoo kon nag fii ak ñi ngi ànd moom di xàccandoo di dóorandoo lu ñu song rek dañ koy daan yéen it ñi ngi leen di ñaanal bu baax a baax bég nañ lool jërëjëfati jërëjëf macha allah. waa am kontaan rek bu baax a baax a baax parce que xam nga li yombul nga woote gars yi mbokk taalibe ñëw wuy si la ñoom ñëpp waaw di rafet rafetlu rek di sant Serigne Touba xam ne Serigne bi lépp Serigne bi la su que mbokk taalibe yi bu ñu nekkee dañ lay wuy nekku sa jëmu jee tax ku tedd kee tax ñu lay wuy si waaw ak yar bi gars yi di seedeeg yooyu xam ne lépp daal yar taal bi moo ko lal daal waaw waaw mais àdduna lépp yar la yar moo la may lu nekk moo la mën a may lu nekk nit ki boo xoolee nit ku ku yaru lu nekk mën na ko am ci àddunaam waaw man dama yax sama mbokk taalibe ak ñi nga xam ne ñoo bokk génération gi lépp nañu sax si taalibe mu tax ñaa la mu tax suñu bay yàq nee ab yar amul morom tax ab yar amul morom day tax a gën fasay morom day tax a gën fasa borom ku la yarul rek la na moo tax yar dafa am ci nit waaw moo daal ñu ciy sàkk mbokk taalibe yëpp nu gën a mënee di joxe jar ak tegin bi wax da ci baax incha allah rabi mooy suñu lépp nuñ mel nii moo ñu ko def am na si kër bu doon si kër sàng Cheikh moo ñu booleeg borom daaru moo tax mu demee nii lépp suñu suñu lépp maam borom daaru la lépp waaw moo ñu def nu ñu mel waaye di ko sant nag Mbacke Balla bu wér a wér a wér a wér waaw sëñ Modou moom waroon na teew mais maam moom la bàyyi fee ci liggéey bi waaye ñu koy sant Mbacke Balla bu baax a baax ko siyaar bu wér di siyaaraal tamit yéen nii gars yi ay ñoom naka taa seen gars yëpp waaw di leen sant di sant jóorin guy di ko wax gis nañu jàppe ci mbir bu baax a baax di ko ñaanal li mu bëgg ci télé bi moom moo ko bëgg yàlla na ko yàlla defal incha allahu rabbi yi waaw waaw ñun suñu lépp dañ koy message si message lay nekk dañ koy jaarale ci Zikroulahi liggéey nag liggéey mooy lépp liggéey ci jàmm yàlla la bokk waaw doomu aadama boo nekkee ndaw nga war a liggéey soo magee nga mën a noppaleeku mën a mais boo liggéey mooy lépp ci àdduna moo tax chaque jour mam borom daal loolu lañuy loolu la ñuy ci ñoom la ñuy ñaax wër na Serigne Touba Mbacké moo tax ndaw yi ñuy gën a fan farlu ci souvent déglu waxu maam bi nag lu ñuy wax waaw liggéey mooy lépp war na seen waaw fonk ñaari waajur yi su ñaari waajur yi ñooy lépp waaw di sàkku seen ñaan waaw di wax suñu yaay yi nañ ñu gën a ñaanal incha allah ay ndaw lañ ñuy ñaanal bu baax incha allah rabbi waaw incha allah rabbi waaw dañ koy neexalaat rek incha allah waaw waaw année bi nañu xalaat décembre incha allah le 7 décembre incha allah rabbi waaw ñu koy tegaat fii nii incha allah waaw gaa yi xaar album bi waaw maa ngi liggéey ci album na ko gars yi xaar bu baax incha allahu rabbi waaw album bi daal xam naa instant si la gars yi nekk ni incha allahu rabbi tawféex jaaraama sama gars yi. Birame maa lay sant di la gërëm wax di la bàyyi ak maam borom daaru rek yow lépp loo bëgg yàlla na ko ku tedd ki defal sa xol dafa rafet waa ñu bokk maam borom daaru dundal jaaraama. <laughs>